asalaamaaleykum asalaamaaleykum nuyu naa leen ziar leen jaajëfal leen bu baax a baax di nuyu képp xam ne rek bu baax a baax fi info point bu baax a baax di nuyu Koungheul ak li ko nuyu honorable député di ko nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi safoo di ñu bàyyi xel rek ñu nuyu baax a baax cette jigéen ñi tey nag fi info mu nekk suñu émission boo xam ne bi à chaque fois dama leen di wax ne émission ëttu jigéen ñi femme développement yi lañ ciy invité émission ëttu jigéen ñi femme yi balance femme yi lañ fi invité ëttu jigéen ñi képp koo xam ne femme nga rek képp koo xam ne rek bañkat nga rek dañ la fiy invité yaa ngi dégg moo tax euh, tay nag euh, ñu amoon suñu invité kooku di euh, ma astu madame Mbaye moom la ñu invité tey femme développement femme xam ne bii yaa ngeen ko xam ngeen ko fii ci biir Koungheul di jaajëfal nga xam ne tamit femme yaa nga ca marché ba di dóorum waar ñi nga xam ne tool yi xam biir kër yi ñi nga xam ne yi tamit ñu bu baax a baax a baax a nag comme ni ma leen ko waxee rek suñu ma astu invité tey comme ni ma leen ko waxee femme développement la ñu koy nuyu di ko ziar Bismillahirrahmanirrahim. Madam mana bob mama asu kan mooy mama asu mën nañ kan mooy mama asu mama asu de mooy benn baay bu bu bu yem yemal ñàkk solo nekk fi ci waaw di xëy di hum maman mu nekk comme ni ma ko waxee sànq femme développement maman Astou mën nañ xam euh, moom ci wàllu ban lay gën euh, bu ma sante yàlla julli yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam waaw di sant sama ñaari waajur maa ngi nuyoo d'abord uh-huh. di nuyu di jaajëfal waa Firi Info. bu baax a baax mhm. euh, sama doom mhm. sama xarit daaw de sëy plus particulièrement yow tamit madame boobu mhm. waaw di rafetlu invitation bi macha allah waaw sant yàlla di wax ne lii rek nag la la ci ñu mel ni yéen média waaw bu loolu weesoo euh, may wax ne maa ngi lott lool ci wax ci man uh-huh. ak ci li nga xamante bi ci laay yëngu uh-huh. ah, lu ci jub rek uh-huh. nimalul suñu borom la lu ci dëng ma ngi jéggal waaw asu mbay ndjay ñu gën ko xam ci tour nday asu fi la ko nga waaw di fi liggey na ci fanam bu bari ndax dama liggey ci développement ni ñu koy waxe dama tel dama tel dugg nak ci development ndax 88 la commencé dugg ci development 88 ci biir dëkk bi ci biir dëkk bi mais maa ngi defee sama ay formation adak bu leen adak bu leen par le biais de eh, ndaraw kay maa ngi koy saluer de passage ah, waaw ndax lu ma am ci développement pratiquement ci loxoom la jaar moom njëkk a dugal ci développement bon jamono boobu ñu ngi doon maa ngi nekkoon ci volet audiovisuel euh, la nekkoon ñu liggéey mais ma amoon fa contrat nekk fa monitrice tamit waaw d'alphabétisation waaw ma jot liggéey ak ñoom waaw foofu daal laa tàmbalee sama liggéey ak ñoom mais léegi nag di liggéey ak yeneen structure pratiquement fii may waxee ak yow depuis deux mille treize ba léegi maa ngi liggéey ci benn euh, plateforme bu ñuy wax CCPA. CCPA. PA. Ah. cadre de concertation des producteurs agricoles. siège social am nekk Kaolack d'ailleurs démb bi may woo sax fekk ma nekkoon conseil d'administration. voilà waaw foofu nag ñu ngi yëngu. ci li ëpp ci mbéyum gerte ak commercialisation waaw ndax euh, dañoo kuréel la boo xam ne dafa ëmb ay groupement ay des femmes quoi des femmes rek groupement mixte am na ay des groupements de femmes mais des groupements mixtes groupement intervillageois producteurs agricoles léegi ñun fii ci Koungheul dañu am groupement boo xam ne bi Eh, foofu la affilié moom mi kuréel boobu mi ngi ëmb soixante groupement inter villageois ñu ci biir JIPA yooyu nag ñun dañ ci am ay sous groupe sous groupement par exemple comme JIPA Koungheul bii ma nekk dama ci am collège des femmes. boo xam ne ci JIPA bi la bokk. gëm sa bopp. collège de femme boobu nag moom loolu la ñuy defal formation yi su ko defee comme ay jigéen lañ ñu defal leen groupement ñu am seen seen linéaire registre de commerce léegi nag di def formation formation ci wàllu hmm, waaw ñun cosmétique comme euh, jamono bi ñu nekk nii euh, sécurité alimentaire dafa lëmbee askan wi waaw souveraineté alimentaire bo mene wax ko mais sécurité alimentaire léegi nak jigen ni comme man groupement yi ma am fii ñu doon ay jigen ñoo xamante ne jigéen ñu jàmbaar yow da ngay dem leer groupement yi groupement di nek da ngay déplacer dem ci vers di ngeen def ay formation wala dal wala ñu moy demee wa léegi groupement yi ni muy mom moy euh dañ leen di formaliser d'abord sama groupement personnel moy collège des femmes gëm sa bopp bopp mooy présidente bi waaw mais yeneen groupement yi aussi man ma ko créer mais dañu am sen président ko bok léegi nak su ko defee lima ma leen njëkk a defal dans un premier temps moy ubbil leen ay caisse ñetti jaay moy ñetti jaay yi da do dama leen di ubbil dans un premier temps ñu fay denc sen xaliss pour won leen yoonu ne nit ñoo fay liggéey liggéey ci banque yi dëgg la mais defal sa banque bopp tamit am na solo te loolu dëgg la fekk naa fi sax ñetti jaay mais inspiration bi maa ko amee woon ak bi may liggéey ak sirpel bu France parce que ku ñuy wax Dione Seck Ibrahima Seck dafa nekk fii dafa dëkk fii Koungheul di doon liggéey maison familiale France du mu indi fi benn programme sirpel porté ko ñu ubbi ay banque locale bon bi ñu fi ubbee ay banque locale ci dëkk yu bari ñu ngi siégé woon fii kër Ismaïla Sall ah. bu ma gisoon ñu ubbi ay banque yu ndaw yooyu ñun ñoo doon donc nag ci jigéen ñi tamit ñu ngi suñu uñuwaake ñu def leen demee ba formé wu ba def seen pièce ñetti a leen seen ay këyit comme ça ñu di leen defal ñoom bi ñuy tàmbali ñun dañu doon jënd mo ak saabu di yang ci suñu biir bi ma ne pourquoi pas ñu jàng ko léegi suñu ko jàngee ba mokkal ko au lieu ñu gënë di jënd nag ñu defar suñu bopp sa léegi suñu defaralee suñu bokk nag dañ koy mëna jaayante ci suñu biir dërëm saabu yéen ko la yoy dañ koy defar waaw dañuy saabu dañuy défar omo dañuy defar madaar mada yi tamit waaw dañuy gel de douche ci biir ci biir dëkk bi la. Ah. am euh, maman Astou yéen am seen benn euh, kii boo xam ne bii loolu kii la ci judduwaay loolu genre euh, kër kër am di ko fa defee wala da ngeen di xam ne bii rek moom la ñu dase. waaw malheureusement nag eh, unité de transformation ngay bëgg wax loolu mooy li nga xamante ne bii mooy li ñu war moom lañ bëgg mais loolu mooy li yombul. parce que ini to pas ke ini yow li nga wax susi dafa mel ni benn société ah dafa mel ni yaa ngi dégg Pas nangam mooy defal li mooy defal parce que dama am ay femmes surtout ay maman ñoo yang ne ñooy defal loolu maman su am aide boo xam ne bii daal gis nga vraiment Eh, du coup eh, jigéen ñi dem nañ ba xam ndax man dama fi doon jóge di dem comme ni ma ko waxee Kaolack di fa gën évoluer ci yeneen zone yi waaw mais bi nga xamante ne man sama waa koñ gis nañ loolu dama leen njëkk a intégré ci CCPA sama collège des femmes boobu bi ñu ci man mën na leen léegi nag liggéey laa xam man aw ma may kenn te du ñaani kenn waaye nañ liggéey mën naa leen woon nag yoon leen ñu waaw léegi noonu lay demee madaar boobu ma lay wax jël di douche bi avant man ma leen koy jàngal parce que defoon naa sama formation ma def sama entreprise individuelle ndigal service di defar sama gel de douche di defar sama détergent di defar sama lave-main ndax mais yooyu yëpp laab bi boo ko defee da nga koy euh, di ko jaay waaw léegi léegi nag su ma ko defaree ba pare man sama xale yi laay jox ñoom ñu dem jaayi wa illaa xale sama groupement boobu ñaar ba ñett ñëw jël par exemple quinze dem jaayi am ci dara andil ma man li ma ci amoon xam nga loolu dina leen intéressé pour ñu jàng ko léegi nag ci lañu ko bëggee ñu defal leen formation bi ñu mais comme li nga wax te nga xam ne mooy li li li ñu bëgg te bariwul yombul mooy unité de transformation parce que bu ñu nee transformation bu dee ne agroalimentaire la ça demande beaucoup hygiène laaj na ko surtout norme laaj na ko qualité laaj na ko surtout waaw si toutefois soo amoo sa espace boo xam loolu kese moo ko tax a jóg tu nga aménager sa surtout non vraiment parce que mooy li may souvent euh, dafay am ñoo xam ne dañuy nekk moom li ma la euh, souvent li may wax ci émission bi dama naan ba taat ñii ci biir dëkk bi dañ leen war a wane bien vrai que am na ñu leen xam waaye dañ leen war a wane nit ñi xam ni ñii ñu ngi jox boo xam ne ku leen jàppale parce que tamit loo am am ñeneen ki dañ war a jàppale yaa ngi dégg mhm. mais tamit euh, bàyyi loolu xel. la mhm. dëgg la dëgg la dëgg la soxna si te lu jar a bàyyi xel moo nekk noonu mhm. jamono bi ñuy jamono bi wuute na ak jamono bi sunu yaay yi doon dund ñun wuute na ak bi sunu maam yi doon dund donc ñun ñu ngi gën a ragal li suñu progéniture ëllëg naka la dem ak jamono bu metti bi mais suñu jàppale woon jigéen ñi am na ñoo xamante ne bi gëm nañ ne da ngay bay dunde dunde li ngay bay surtout ba loolu ngay wax euh, doguma la loolu tey jii boo amoon sa benn kii boo xam ne bi yaa nga na yoo xam ko def très yoo xam ne dañu ne fan la la ay doomu Koungheul loolu dafa kii mooy li nga xamante ne bi mooy suñu xalaat mooy suñu bëgg-bëgg def ay jéego waa ñu ngi jéego yi mooy euh, boo mënalul sa bopp ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci dëkk bi ñooñu ngay bëgg di seet rek ñi nga am ci yaakaar euh, yaakaar ñu jàppale Eh, dama ci profité bon di félicité waale ku mel na eh, Alioune Badara parce que waaw nee ma man de lu ma xamul wala lu ma déggul mais bu ma sañoon ñëpp dañoo liggéey euh, bi ñu defee suñu euh, formation ci euh, céréale locale bi. il paraît que semaine yi am na formation bi ngeen doon oh, waaw waaw si. <laughs> <laughs> non dama koy gëstu. waaw mu di def dóorum waar boo xam ne bi yaa ko gën a xam moo tax du ko gëstu ba pare. Mm-hmm. soo ko indil la waa ko ngeen fii mm-hmm. mm-hmm. ñaari semaine yi passé. maa ngi nekkoon ci ay formation surtout tey sax sànq bi may bi may woo fekk juste ma jógee ci pépinière bi. ay pépinière bi parce que euh, formation bi ñu def dañ ko ci maraîchage. waaw laaj waa yaatuwul li tax yaatuwul mooy eh, problème foncier bi boo ko dee xool jigéen ñi même ba ci ñi ñu ngi def ay maraîchage mais ñoo ci gis presque ci seen biir kër yi lañ koy def wala bu dee ci àll bi la tout juste ci seen ginnaaw kër yi par contre su fekkoonte ne amoon nañ accès à la terre dinañu permettre ñu def yooyu parce que xalaat gëstu yi mi jàng yi nii fu nekk lañ koy defee à mon âge bàyyiwuma ba léegi di jàng di def samay formation la am sama xaalis fayal sama bopp am acquisition donc yi nekk ci bopp bi ak xalaat yi ak yéene na mais possibilité yi mooy mooy léegi eh, formation boobu eh, bi ñu ko defee ba pare 3FPT ñoo ñu ko may ñuy gërëm de passage Abdou Fafoor bi mbaaxaan euh, moo moom moo porté woon moo moo loolu yëpp 3 FPT madame Doufa Gueye jàmbaar ba dee moo ñu may formation yooyu yëpp sinon yi ma doon defal jigéen ñi dañu doon fay ñu defal ñu formation. ñoom dañoo ñu fay ñu. mais ñu 3 FPT fay ñu ñetti formation yi ñu may yëpp ci 2023 bi ñoo ñu indil matériel bi. Ah, indil ñu matière première bi. ba pare formé ñu. yow groupement yëpp nga jël dajale leen ñi nga xam ne da da ngeen li ma am ci groupement yëpp ma leen ma woon groupement ay ñetti groupement ba ñeenti ba juróom. wax rek développement dafa laaj nga élargir. géeku formation yooyu comme naa ñeneen dëkk bi xam ne ñoom seeni groupement la ñu te am formation 3FPT yomb bon ma am ma invité mais majorité bi ma jël ko ci sama ay groupement man légui invité yenen président du groupement comme ça ñom ñu ñew suñu bokké bu ñu paree dinañ mëna dem multiplier bu ñu demee dem def restitution bi waaw dajale seen groupement jangal leen ñom li ñu jang ba paré ñu continuer liggéey wa légui ñu nak loolu lañ def man loolu la def mais ci kaw xam nga rassembler ay na rek la sant yàlla par rapport ñetti caabi groupe yi ma ci yàlla dimbali na ma ba ñu ay liggéeykat lañu waaw damay dajale trente trente personnes normalement la am damay dajale ñoom dañuy yokk ba quarante cinq personnes benn groupement ñu yokk am quarante cinq personnes yooyu daje fa léegi nag di denc seen xaalis di ci lëkkante ci seen biir. waaw mais approche bi nii par exemple fi nekk bu ñu demee ba ñuy bëgg a ba ñuy bëgg a wóor ne dañuy fay xaalis yëpp donc ñun ñu lebaloon waaw ko defee ñu denc denc bu ne tabaski approche tabaski jot na ñu toj kees bi yàlla dimbali na ma nag ba li ma ciy dégg yëpp dalagul ci suñu borom parce que loolu ñoo gën a tax ma ñuy wax parce que loolu souvent te loolu ndimbalul suñu borom la xanaa ñu waaw ndimbalul suñu borom la euh, président yi yëpp kenn ku ci nekk bu sa toj kees jotee danga may woo ma ñëw. koo ah, hmm. man ñoom ñëpp maa leen leen di leen du yëpp mën a dem. Hmm. mais bu ma ay deux ou trois mois ma dem benn hmm. xool rectifier defaraat ñu àndaat. dem léegi bu ñu dee tas nag une semaine avant waaw léegi bureau bi daje ñu nekk di réglé. waaw ba lépp mat. ñu dugal ci kees bi teg nga xam ne bés bi ñuy joxe day yomb ku ñëw dañ leen nag sa en sa a sa xaalis a sa carnet moo ngi ci biir vérifier. bu demee nga vérifier nga xam ne non non non amul dem vérifier nga toog kay. waaw vérifier ba pare. nga ah, doon yéen da ngeen di xëy mu dugalaat di defaat defaat defaat wala kaa kusaan ñu kii bu paree nag xam nga loolu joxe bi day yomb léegi bu 45 ay nit ñi dañuy daje bu ñu añee ba pare rek yéen boobu moto bi ngeen daaneel banque yi. non non du tout <laughs> non <laughs> xaalis boobu doy. Mhm. bi tax ñuy mën a bàyyi banque yi pour le moment. Mhm, mhm. waaw mais xaalis boobu euh, xaalis boobu surtout yéen ci biir kër hmm? ci denc xaalis boobu xaalis ngeen di dajale ah biir ah ah ah loolu moom secret la nañ ko denc biir <laughs> mën am na kees yoo xam ne yi sax xaalis bi du ci waaw parce que xaalis bi nekk ci sa loos moo gën a yomb nekk ci kees bi bu <laughs> ñu la lebalee xaalis mi sa loos dee fay dund fay dee ñu fayal la ah voilà nag dañoo muus dañuy jël xaalis bi tasaare ko ci femme après ñu fayaat mais loolu ah loolu mooy liggéey comme ni ma leen ko waxoon sànq rek jigéen ñi ànd ak maman Astou madame Mbaye comme ni ma leen naa leen buñ fi koo xam ne kii xamoo leen chaque fois dañ leen fi invité koo xam ne xam ngeen ko miin ngeen ko ba tax maman sànq ñu ngi doon wax ci affaire kii ba tey rek femme yi saa yu femme chaque jour femme yi parce que ñoom ñooy liggéeykat yi ko même koy góor yi ay góor kat waat lañ waaye jigéen ñi tamit seen wàll parce que tey dafa mel ni jigéen yi yëpp dañoo rassemble ci mouvement yi jigéen boo gis daal yore la yóbbu parce que tey dafa mel ni ku dëkk sa koñ dëkk sa wet di nga mën a roy nga ne mën de moment bi lu muy kii def ni man neex na mu ñëw ci yow nga daal di ji boot keneen ñëw nga daal di boot loolu day tax ba surtout jigéen ñi parce que femme au foyer tey dafa mel ni mu ngi jeex Sénégal waaw ma chérie xam nga loolu dafa am solo bu baax a baax a baax solo si mu njëkk am moom mooy comme ni ñu koy waxee jamono neexatul euh, góor ñi dëgg la ñu def seen kéem lay kàttan mais bu àdduna di yokku njaboot di yokku soxla yi di yokku te liggéey yombatul dafay yéeme kon loolu ndokk bi góor ñi comprendre ne seeni seeni jabar war nañ mën a liggéey fi ñu toll nii ñu di leen ci bàyyi li tax mu ëpp solo tam mooy que ne jigéen bu ñu amatul jot dootuñu dugg ci yeneen détails yu bari euh, jamono neexul tentation bare na boo amee jeet yu ndaw nga dajale leen ñuy am soxla di liggéey di mën a fajal seen bopp duñu soxla alalu keneen dootuñu sonal seen jëkkër yi stress dina wàññeeku parce que am na yenn métit yu metti yi yenn naqari deret yi ñàkk a comprendre sa jëkkër luñ la laale nga sofe c'est parce que am na yu nekk ci sa fort intérieur yoo xam ne da nga koy soxla mënoo koo faj ba pare mënuloo mënuloo mais soxla làmb sa poos fajal sa bopp dafa am solo sa borom keur amul nga am dimbali ko dafa am solo te ya, jigéen ñi ñu ngi dimbali goor ni ci keur yi parce que ñu ngi leen di dimbali ci seen njabot yi boo jëndee mbubb ñu jënd daal boo jëndee saabu ñu jënd ko do su commencé bu fajj boobu ngay wax wax tey da ngay gis jigen di wax naan damay xaar su suñu ñetti jaar su ñetti jaar di ngay dégg nit ndeysaan ku ci jox ñu jox la sa xaar da ngay daw lima ti say dong suku mata pur pour lele la li nga wax ni di dem sànd bi jeet bi di dañ ne léegi dañoo bëgg su koor bi jublu see ñu jël ci kees bi jënd matériel koor li nga xam dañ koy soxla yëpp ñu ko kenn ku nekk yóbbu sa kër na balaa koor sori bala mo jeex kor gi sori on xam na ñoo ngi sóoraale seen borom kër tout wala lolo loolu dafa am solo dëgg la dëgg la léegi nag euh, bu loolu demee da ngay daal di bëgg nag invité ñëpp en ce que ñu jël def loolu gis nga Koungheul gi ni nga ko waxee sànq. Euh, femme dañ koy bàyyi. ñi nga xam ne dañuy passé université sax mais ñi ngi liggéey ci lu jëm ci loolu ak ñi nga xamante ne bii ñi ngi fësal di def seen effort léegi kon euh, dafa dafa war. autorité yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi man toujours dama koy wax même bu dul autorité yi sax borom toole yi nga xamante bi ñi ngi nekk ci dëkk bi eh, ñu gën a dugal seen loxo ci kuréel yi fi nekk di dimbali jigéen ñi waaw. parce que dafa mel ni tey jii seen kuréel euh, euh, groupement yi. yow mi jiite tey nit bu ñu jógewoon fee borom ne la man de même bu dul terrain bi sax ngay ngay def ci jafe-jafe boo xam ne da nga ko luyee. xam nga. effectivement yaa ngi dégg luyee naa ko nag loolu moom moom mooy ñun ñu ngi leen di won en yoon bi parce que ak foyer de la femme jigéen ñi ñoo ko moom mais bu dul loolu buñ ñu mënul. defaral des unités de transformation en bonne et due forme ah ñu mën ñu jàppale ci local yoo xamante ne bii yu tegee euh, du am visibilité la wax de la foyer de la femme bi nga xamante ne bii jigéen ñëpp ñoo ko moom même moom espace la espace bii nii la ñu ngi occupé ci espace bii nii foyer de la femme bi bu fekkente ne bi dañ ko war dañu war a def dañ fa war di dem a tout moment di fa transformer ak di ko defal dañ ñu koy réaménager waaw bu ñu réaménager les foyers bii nii cour boobu óol la mais am na fa salle yoo xam ne am na nu ñu koy defaree mu am hygiène bi di war jigéen bu jógati di nga dem foyer de la femme fa sawar a liggéeyee ah mais euh, malheureusement voilà waaw message la moo tax moo tax ma ci profité di wax euh, monsieur le maire Alioune Badara parce que nag quoi qu'on dise moom mooy le premier magistrat de la ville ba pare doon un jeune ak doon xale boo xamante ne bi mi ngi euh, allah amna gëdd amna na iya. yéene bi waaw may may koy lancer appel à ce que mu gën ñoo xoolaat bu baax a baax waaw parce que loolu dafay defar seen liggéey gis nga soxna si ni ma ko waxee nii kay femme de développement yi fi nekk ya. wala femme transformatrice ya. yi fi nekk surtout femme yu mag yi nga xamante ne dañ fi nekk comme mën naa joxe benn exemple ci covid 19 bi ah am na yoo xamante ne bi dañ ko génne woon jox ko eh, femme transformatrice yi muy un coup boo xam ne dañ cee liggéey joxaat ko askan wi parce que dañ leen waxoon ne bu ñu war fa toog comme ni ñu joxe woon don de Covid yi génne ay dañu ko def mais fii nii pourquoi pas ñu femme transformatrice yi fi ne ñu avaliser leen ñëw wutal leen matériel ak intrant ne leen liggéey leen lii kit ñu def ko ñoom ñu def ko des kits alimentaires mais kit alimentaire yooyu bu ñu ko defee dëkk bi am na fi ñoo xamante ne bii soxla nañ ko tey boo tëddee ba guddi nga dem benn kër indi benn saako saako bi nga defal ko ci borom vingt cinq sachet araw defal ko ci vingt cinq sachet ceeb defal ko ci vingt cinq sachet la defal ko ci farine infantile ah yu yëpp ci kii bi la mais loolu ki yo ki moom eh, eh, eh, groupement wam di ko liggéey dina ci gis boppam ki ngay dox ba guddi nga yëkkati ko ñëw jox ko ko bu bër setee su xëyee yorul ñaari dërëm bu amee suukar su fondee jox doomam mu naan mais bu la ñaanalee dafay wéy mais loolu dafa bokk ci politique de développement léegi loolu moo tax ñuy interpeller ñu fi nekk quand je dis man bu may interpeller du ma interpeller monsieur le maire kese parce que pour wax la suñu formation céréale locale bi ñuy def fermeture bi moom moo ñoo def ko mais dafa yëkkati enveloppe jox ñu bu fort jënd leen intrant ngeen dem liggéey comme ni ko madame honorable Fanta Sall defee ah ak beneen groupement boo xamante ne bi Bambouk ca kanam la am na ñeneen ñu fi nekk xëy na dox seen wàll ci yeneen waar parce que ñu am na ñu fi jëlee ay jigéen di leen jàngali feneen ak di leen defloo yooyu mais lu ñu ci def doyul doyul waaw bu ñu approché centre de développement yi waxtaan ak ñoom dinañ leen xamal Eh, vraiment fi góom bi nekk comme ça ba pare accompagner leen ci lool en tout cas moi je te ni ma paree gëm naa ne ñeneen ñi fi nekk ñëpp surtout noonu la ñu paree pour ànd ak ñoom rek li ci des mooy ñoom ñu indiwaat seen xel eh, impliqué ñu ci biir comme ça ñu xool waaw waaw parce que loolu dinañu dimbali d'accord Eh, ci kaw loolu euh, tamit euh, fu mu nekk nii l'émission tire à sa fin fu mu nekk nii Mama Sow lan ngay euh, parce yi nga yi li ma leen di wax dajale jigéen yombul comme ni ñu ko waxee sànq lancé nga ko ci sa biir dina xam ne dañuy ñëw parce que dañoo gis nit ñi di def am na ñoo xam ne dañuy ñëw parce dañoo bëgg a def. am na ñoo xam ne dañuy ñëw dañ leen di yóbbaale mais li ma leen di lancer rek moom mooy que président groupement yi yépp nag laa wax parce que ñoom bu ma waxee xam ne coono bu metti la ñuy parce que bu lijjanti ji amee ñoom ñoom ñooy woote bu rassembler amee ñoo leen di rassembler ñuy gën a ci li ñuy def ñuy uti xam-xam ñoo andi ah donc ñuy comprendre groupement yi tant que groupement yi nañuy comprendre seen président yi. té xamné ne lu dul liggéey liggéey ko gën waaw parce que dina la permettre nga bañ talal sa loxo té bo bëggé sax sa soxla sax ko ko waaw loolu daal maa ngi ciy jigéen ñep di wax né jigéen ñi nañ jóg ci seen kër yi dem vers les groupements waxtaan ak ñoom parce que l'individuel neex na mais ànd liggéey dax ko dàq moko ko wa lolu dal man man lolu lay wax di sant nak di gërëm jigéen ñi nekk ci dëkk bi yépp di femme de développement boo commencé tuur dina mel ni da ngay bàyyi ñeneen mais dans le cadre général ñëpp lay wax ñëpp ñëpp parce que ñëpp jàmbaar lañ te kenn ku nekk yaa ngi yëngu sa di yaatal di di di di ay nit di leen woon loolu liggéey am na ñoo xam ne sax dañuy embauché sama doole yeggul foofu mais am na ñoo xam ne seen doole yegg na ci nit mu ñëw liggéey mu fay ko mu dem faji soxlaam nekkul ci groupement am na kooku mu ngi liggéeyal pour mu am waaw léegi nag loolu kii def loolu te di ko defee ak ay moyens boppam su ko nit dimbalee indee mu dem nañ ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci loolu waaw di sant nag di gërëm macha allah di wax dana lu ci ci nekk rek nga xam nit mo matul non non non yow moom yow moom sant yàlla rek mama asu comme ni ma ko waxee sànq moom mu nekkoon sama invité mama asu ma lay gërëm di la sant sa dernier mot mo la ouais suma dernier moom moom mooy content eh, na vraiment parce que nak euh daf ma jël au bi te yaakaaroon nan sama jëmm ju xeebu ju lottu ji eh, taxul nit bayyi xel ci man ba tax mu di ma mu di ma di ma di invité waaw mais léegi tamit ma koy def sama sant yalla nak di la sant bu baax baax di sant ko di len ñaanal nak ci kaw ta kanam <laughs> waaw ngeen gëna a yokk macha allah di ñaan rew mi ñu ngi dëgmal ay élection surtout waaw mu doon loo xamante ne mbir mu doy waar la euh, may wax rek nañ ñëpp yore seen xel ne en tout cas réew ñoo ko bokk mm-hmm. Sénégal nit ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. euh, kenn ku ci nekk li nga ci am mënoo koo dagg dem ak moom kon nañu bàyyi xel bàyyante xel dem yàlla nañ ci dugg ci jàmm génn ci ci jàmm ñu kenn bañ koy am ben lont lont ñu boole ñepp ñëpp la leen parce que ma sha allah ñepp <laughs> ñoo yam deug lay amé merci beaucoup Mama Astou madame Mbaye bu kontaan ci mom lool nak ñu ngi jaajëfal bu baaxa ba et lii rek lañ indi indiloon tey seen émission ëttu jigéen ñi newoon naa leen ba tànk fam laa leen indi tey indi na leen ko dégg ngeen ko lu mu wax mi nga xam ne dafay ay jigéen moom mi nga xamné ne moom à chaque fois rek do war rek ko ñor ba tax ñu leen ko indi indiloon tay nak mu nekkoon seen émission aussi di gën a di jaajëfal euh, remercier bu baax a baax samay techniciens yi ñaar techniciens nga xam ne ah des fois nag dañ may ci waaye garaawul ñoo fa maa leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous samedi incha allah ci seen émission yor-yor.